wax ci cause yi immigration clandestine bi euh, kilifa pour euh, mieux centrer le le le le le débat parce que dañu seetlu ne carrément euh, yaa ngi wax waxi pauvreté te xale yu góor yi nga xam ne ñooy dem di braver la mer. bu ñu seetloo si ñoom bu ñu jëlee une dizaine de personnes huit yëpp ay pêcheurs leen te ñu xam ne carrément problème de licence de péche yi dafa ñëw au niveau du Sénégal euh, pêche bi nga xam ne la pêche abusive ko ñu ngi koy waxee tey est-ce que tey jotul ñu demaat vers la pêche artisanale Euh, tu viens de le dire euh, lépp loo xamante ni. Mhm. les jeunes sénégalais parce que ñàkkuñu jom. Mhm. fexe nañ pour créer ko pour di ci am sutura. Mhm. état du leen ko bàyyee. day ñëwaat def ay accords. signé waat ay accords. avec les puissances. ñu ñëwaat pêcheurs yi nga xamante ni ci géej gi lañ doon dem. mën a napp. gisatuñ luñ napp ci géej gi mais dañ naan kon ñun fan la ñu jëm nañ fi jógee. Mm-hmm. wala ñun ñu soppaliku sax dee ci géej gi. Mm-hmm. c'est-à-dire foofu la ñu toll ay retour rek ay yooy qu'ils arrêtent de signer des accords nañu bàyyi géej gi ñuy jox les puissances nañu nañ nañ nañu xotti lépp luy signature nañu annuler lépp luy contrat. ou bien renégocier. le Sénégal au Sénégalais du renégocier nous avons nos pêcheurs. pourquoi à chaque fois dañuy jël li nga xamante ni moom la ñu jox euh, moom lañu am pour di ko jox les étrangers pour qu'ils viennent l'exploiter pour lan pour lan moi je ne parle pas de renégociation ni rien le Sénégal au Sénégalais <laughs> nos richesses pour nous nañu jël suñu richesse yi ñu delloowaat ñu ko bu ñu bañee ñu dee ci géej gi bu ñu bañee ñu dem ci géej gi je du ma bokk ci ñi nga xamante ni dañuy sensibiliser ou di conscientiser les jeunes naan leen non toog leen dugg na fi. génn fi mais il faut que l'on sensibilise les jeunes aussi hein. Euh, parce que certes fekkee sa état dafa faillir à sa mission. njàpp bi tey xam nga fii le problème des sénégalais mooy dañuy fekk kiy jooy ñu naan ko noppil. te war a dem ci ki koy dóor naan ko ne ko bàyyil dóor yi. mais songu géej bi aussi du solution bi aussi kilifa. je ne dis pas solution. je ne dis pas aussi que solution la du solution duma ko conseiller kenn mais aussi duma taxaw ci nit ñi naan leen comme ni ko ñenn ñi di defee bàyyi leen géej gi da ngeen di xaru dugg na fii génn fii nga dee ba noppi fii ki sa réew ñu rey la ki sa réew ba pare nga da ngay xaw ku dee lan lay xaruwaat sa à foofu la affaire bi toll nit ñi fi mu leen toll mooy c'est des morts vivants dañoo dee di dox fi ñu toll mooy dañuy dund dund gu gën gàcce nit bugg ko kenn buggul gàcce njaab bi tey du ma yeewu ci koñ sama yaay bu bëggee togg il faut mu dugg kër euh, Samba ñaan fa kopp ceeb dugg kër Paate ñaan fa benn kopp diwlin almet bu ñu bu ñu taalee sax dañ koy àbb ji extrême pauvreté fi nga doon dem di ko fa yaakaar di ko fa wut muy ci géej gi di napp say jën ñu jël lépp jox ko ñoo xamante ni ñeneen ñoo koy exploité espoir saa bu nekk euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu dealer avec les ONG ñu dealer avec euh, Union européenne ñu dealer ak ak ak g ak ñu kum ci mën a doon ñu jox leen ay milliards ñu jëlaat milliards yooyu sàccaat ko séddoo biir jëlaat milliards yooyu di ko alimenté wante seen biir donc problème bi foofu la avant de dire aux au jeunes d'arrêter de partir nañ leen taxaw ñu régler le problème bi leen di demloo mooy sàcc gi. suñu suñu politique yi nekkee Macky Sall avec son gouvernement et toute l'opposition yi nga xamante ni gis nañ leen actuellement ci lu ñuy ne gëmuñu ñu gëmuñu ñu il est temps que nag sénégalais yi gëm seen bopp il est temps que sénégalais yi taxaw taxaw jàmmarloo ak ñoom foofu la ñu ah. Mhm. waaye kilifa am na benn affaire boo osoo xam ne il faut tamit ñu wax ci au-delà de l'échec même de nos politiques ou bien des politiciens yi nga xam ne ñoo fi jaar depuis 2006 ba 2020 am na aussi beneen problème buy tax jeunes di dem euh, di braver la mer moo nekk la pression sociale aussi. loolu aussi nañ ci wax aussi kilifa parce que fii Sénégal euh, la moo tekki dafa dafa dafa dafa leen sonal aussi. Euh, njàpp bi tey kenn judduwul. pour dund ba benn instant nga dem dugg ci géej dee kenn def kenn judduwul pour loolu. mais parce que xoolal euh, si si si chiffres yi am na ñoo xam ne dañoo am seen ay métiers am na ñoo xam ne ce sont des enseignants des professeurs am ñoo xam ne dañoo am seen atelier kon ñooñu xam nga ne amuñu problème de long problème mais je désolé am nañ ko kañ. si naka. mais ci am nga seen métier fii wax ma ban métier moo fi dox. mais est-ce que problème de doylu bi aussi. ak Eldorado bi ñu yaakaar ne. non non non moo nekk en Europe aussi. non je suis désolé man gis naa koo xamante ni euh, elle est gardien il est gardien dans une banque mu ngi am licence en banque finance. Mm-hmm. licence en banque finance la am il n'a pas été recruté il a déposé son CV partout jëluñu ko. mu toog di garder ñu koy fay soixante quinze mille kon kooku doy la na te pourtant doylu na te pourtant il a une femme qui l'encourage mm-hmm. il a une femme qui comprend comment ça se passe ici dans ce pays mm-hmm. ñi ñi muy garder seen banque ñooñu ñëpp di liggéeyee ci banque bi du seen moroom ci diplôme moo leen gën a riche CV fii dëkku kumba am ndey ak kumba amul ndey la dëkku loxo bu gudd la buñ la nee 16 millions Sénégalais, il n'y a que 400 000 qui sont embauchés. Il n'y a que 400 000 qui sont employés, mm -hmm. que ça soit public ou privé. Euh, Ndiab, Nini, Bundon am au moins par fin du mois cent mille francs. Au moins, au moins la là 100 000 francs. Mm -hmm. Non, nous nous le gars. parce que dee kenn bugg ko. SMIC bi aussi dañ coo war a waxaat parce que SMIC bi depuis euh, soixante seize bu ma bu ma jiwmul si leen ko fixé fii au niveau du Sénégal soixante mille francs aussi euh, fajalul kenn dara. soixante mille francs pour soixante mille francs mooy te ñan ñoo koy jot ñan ñooy jot soixante mille francs xam nga avec nos politiques ce qu'ils déclarent ni moom la ñuy joxe buñ la nee ñu ngi joxe soixante mille déjà c'est faux. bu ñu la nee ñu ngi koy jox euh, soixante familles c'est faux y a que cinq familles qui en bénéficient te cinq familles yooyu dañ leen koy jël jox leen ko mooy cinq familles yi nga xamante ni dañoo bokk ci parti bi wala seen baaya bokk ci parti bi wala seen lenn moo bokk ci parti bi jege parti bi ñu tas leen ko ku nekk cent cinquante mille cent cinquante mille c'est faux lépp lu ñu lay wax ci chiffre. Mhm. dara amu ci suba ba ngoon jot et le rôle euh, du ministère de la jeunesse dans tout ça est-ce que euh, tey jii mën nañu wax ne ministère de la jeunesse am na njëriñ. c'est qui notre d'ailleurs d'ailleurs c'est qui notre ministre de la jeunesse allez vous renseigner dem leen ngeen xool xooli kan mooy suñ ministre de la jeunesse. mais xam nga ko. non mais man xam naa ko xam naa ko mais dama ne yéen journaliste dem leen ngeen gëstu ji kan mooy suñ ministre de la jeunesse. Mhm. yeah. ak yi fi jot a jaar yépp ñan ñooy suñ ministre de la jeunesse lu toll ni jeunesse lu toll ni jeunesse l'avenir ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci dëkk ba mhm. ëpp solo ca dëkk ba quand on parle de de de relève quand on parle de l'avenir quand on parle du futur ñi ëpp solo ca dëkk ba nga jël par exemple exemple nga jël ku mel ni par exemple benn Mame Mbaye Niang il fut ministre de la jeunesse nga ne Mame Mbaye Niang kay nekk ministre jeunesse u Sénégal c'est de l'insulte tu ne respectes pourquoi, pas cette jeunesse ne, il ne mérite du ci lenn lu mu ko mérité du ci lenn nag je te dis du ci lenn nag du ci éthique du ci morale du ci déontologie du ci njàng du ci du ci du ci dara lu lu mu mérité pour nekk le ministre de cette jeunesse consciente de cette jeunesse dévouée de cette jeunesse déterminée yi bëgg dara nga saaga leen ñu ne déet na waaye nga jógee ci Mame Mbaye Niang nga ne Pape Gorgui Ndong kaay nekkaat seen ministre de la jeunesse ñu nekk ne déedéet waaye nga jël ne ne Fatoumata Tall ne ko kaay nekk seen ministre de la jeunesse c'est Macky sàll en personne c'est Macky Sall qui ne respecte pas les Sénégalais et qui s'en fiche yoonam nekkul ci na Sénégalais yi di dee wala ñu ngi dund lu dul Amadou Sall ak jabaram ñoruñu ko lii mooy wax ji te lii la Serigne Seck Sénégalais yépp war a taxaw wax ko ak moom Macky sàll la ngi nii di ngand ngand lu ci ci ci une bi ñu naan way le leader de kii yi le génie Macky ki bii tas parti yi tas parti mooy li gën a yomb soxlawul ngay ngay nekk un génie pour pour corrompre un politicien tu n'as pas besoin d'être un génie benn sa Seck par exemple bi nga xamante ni bugguma woon sax mu dugg ci suñu suñu débat mais il le faut mhm. benn sa Seck par exemple bi nga xamante ni pour se faire un cote dafa dafa changer tarixa pour dem ci beneen tarixa mhm. kuy transhumé de tariha à tariha kooku bu xëyee transhumé de parti politique à parti politique war na nekk un événement ça doit être un non événement. pourquoi. mais attends kuy fowee ak kuy quelqu'un qui triche avec la religion. Mm -hmm. quelqu'un qui qui qui n'est pas honnête avec la religion. quelqu'un qui a une lâcheté avec la religion mais kooku bu xëyee am cette malhonnêteté cette même lâcheté avec. affaire u parti politique loolu war na nekk un événement. mais il a Idrissa Seck moo moo xëy moo xëy moo moo moo moo moo fen mhm. par exemple dafa mel ni nga ne xaj bi moo mbaw parce que c'est un politicien sa Seck moo transhumé dafa mel ni nga ne mbaam mi moo ne ŋaax parce que c'est ce qui est normal. mais li waroon a nekk événement te dama ciy attiré waat l'attention des sénégalais. mooy bu ngeen xëyee ñëwee leen politicien bi waxi daawam bi ak bi bi biñ ko méngalee bokk la nit ñi dañ war a jubiler. parce que dañ war a wax guléet bi ñu juddoo ba léegi lan la ñuy dégg politicien bi mu fi jaaree euh, daaw wax bi mu waxoon bi mu jaaree ren daf ko changé loolu la ñuy dégg donc on est habitué à leur mensonge on sait que pour être un bon politicien il faut être un menteur. est un grand menteur. quelqu'un qui n'a pas de vergogne. est-ce que c'est le peuple sénégalais qui est amnésique bëgg ku koy nax aussi. mais loolu mais mais am nañ ci part de responsabilité. le peuple am na ci part de responsabilité njaat bi tey parce que ñooy bëgg saa su nekk di fal ay ñoo xamante ni tekki wuñu dara démb ak tey les plus grands chômeurs de ce pays kenn ci du la ne li laay liggéey benn waay daf ma ne wéy. ma dégg ñuy werante noonu Idrissa Seck li mu yoroon a jeex moo tax mu ñëw mu ne noonu li mu yor mënut a jeex may leen yéen bi ngeen juddoo ba tey lan ngeen xam ci Idrissa Seck que ni politicien la bi mu commencé di ko dégg ni am na xaalis yooyu politicien la ñu def ko fi premier ministre bi ñu ko fi dénkee bi ñu fi defee euh, kii décentraliser mu sàcc 44 milliards 44 milliards dëgg la. bëri na mais ak train de vie bi Idy di mëne ak ay doomam ak njabootam pandant seize ans su dollikuwul dafay jeex pandant quatorze ans am sori bu bu fekkee day génn te du dolliku dafay jeex fi may bëgg a waxee mooy maanaam Idrissa Idrissa Seck n'a pas de travail amul liggéey amul liggéey xaalis bu mu sàccoon di ci dem élection di ci opposé wu di ci entretenir boppam train de vie wam ñëpp gis nañ ni mu demee woon xaalis boobu au bout de quatorze ans dafay jeex mais